TV mooy suñu télé. la chaîne de la vérité. tasaare leen ko. yàlla bu baax. tey am ngeen bis bu mag tey ci ah. wàllu làmb sa dig seen diggante ak ki nga xamante ni moom ah. ah. un grand champion ci biir Pikine magam tey boo amoon kàddu yooyu wax Boy Niang 2 yan kàddu lay doon. waaw fu mu toll nii moom ñaanal ko la ñuy def yàlla na ko yàlla may ndam bu sedd guy ci ñu ko koy ñaanal combat bi xam nañu. fu mu toll xam nañ tam aussi lu ñu jaral ak fu ñu combat bi yóbbu ak fu ñu combat bi yóbbu duñ def lu dul ñaan yàlla mi am ndam yàlla may ñu ndam. non taxaw na macha allah. mais gis nga tafaati. non gisuma ko mais quatre-vingt-quinze kilos mun na affronter ku ne. te ñaar romb na cent su dëgg affaire du boo doon digal sa lan nga koy diggal non mu mu séré ci xeex bi wala non li ñuy lu ñuy ni duñ ko wax non dañu gis dañu gis tafatin mu wàññeeku lool wañ ko abu bari ah. ngir gëna a ci combat bi ñu gis ni dafa ñew pour xeex hmm. boy ñaar def na boxe amuñ daal lu ñuy lu ñuy moytu combat bi la xeex gars dañu gis bu ñor té buñ tàppale ko ah, boy ñaar ah. boy ñaar ah. non non non euh, jàmbaar dem guerre doo wane say ñu ngi ñaan yàlla ñu mën yàlla yàlla may ndam amul leneen lu ñuy calculer ci combat ndam rek moo ñu jig te dañuy daan combat bi du match nul ndam moo ñu jig ndam ñu ngi ñaan yàlla mi am ndam may ndam. bu baax. eh beeru kii bu ñëwee rek. kii bu ñëwee rek lépp mën naa. lan ngay wax jeunesse bi. kii moo ñu jàngal ko de. moo si père Matar Diop. lan ngay wax jeunesse bi. jeunesse bi ci ci violence bi. non Pikine ku ne xam-xam ci non violence. du dëgg ñun ñooy recevoir ñooy xaar. Eh bu ñëwee nañ leen teral. yaa ngi dégg sportivement daan nañ délibéré ba pare eh, gunge lañ. asalaamaaleykum maa ngi sant yàlla di di sant suñu ñaari waajur di nuyu waa kër Cheikhna Cheikh Sadou Abi di nuyu waa kër Cheikhna Wuldu Maamin yëpp fépp fu sëtu Cheikhna Cheikh bu nekk rek ñu nuyu bu baax di la jox fi cër ak sa wàccuwaay. baax na baax na. waaw yéen journaliste yi aussi ñu ngi ñu yokk jégalu rek. waaw ku ci nekk ak xol bi ngay demee rek moo tax mais ñu yokk jégalu ah. waaw di nuyu képp ku teew di doomu Pikine maa ngi nuyu sama mbokk mbër yi nga xam ne ñoo teew fii mais su ma la may ëmbal seen rek dafa yóbbaale ñëpp parce que moom mooy suñu mag ñu koy nuyu bu baax ñu nuyu autorité yi toog ñu teew fii yëpp ku ci mel ni Isaaxa ku ci mel ni Ousseynou suñu grand chef de quartier fi ñu nekk nii di rakk ci Thierno Ndomba ñu ngi koy grand maa lay nuyu tey yëpp nekk boo ñaan nuyu na la jox la sa ak sa wàccuwaay ak doomu Pikine yi fi ne doomu Pikine yi déplacé wu ñëw yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay. ñaar de nag mobilisation tey nga xam ne point ko ko gisee. damay sant yàlla bu baax rek. ñaa bu mu toll ci Pikine dañ gën a wan responsabilité bi ñu ma jox muy drapeau Pikine moo war ko yóbbu di leen xeexal ku mu mënti doon tey wane nañ ma ko dama ciy sant yàlla bu baax a baax di leen remercier di xam ni borom com drapeau bi borom fula borom allah lu métti allah rabbi léegi Boy Niang Boy Niang ku ne xam na ni Boy Niang ku ne xam na ni yaa ngi jëm ci bés ne un très grand champion keroog bi ma ko seeti jee dégg nga li ma wax sa adversaire dafa wàññi poids ba mu bari pare pour doon benn athlète pour mën a jàkkaarloog yow pour xeex ak yow est-ce que yaa ngi pare est-ce que yaa ngi xel bés boobu est-ce que yaa ngi bàyyi xel sa adversaire. waaw sant yàlla bu baax a baax ñun moom boo xoolee ñun focalisé wu ñu la fekk dafa yokk poids wala dafa wàññi poids ñun lu ñu muy lu liggéey ak lu ñu gëm loolu la ñu focalisé te loolu liggéey nañu bu baax a baax a baax ànd nañu ñi war a àndal liggéey nañ nu mu ko waree. te bu jour ba incha allah dañ wane liggéey ci kàttanu yàlla waaye le fait que moom dafa wàññi poids wala dafa yokk poids loolu moom la concerné incha allah. jël micro bi ñaari combat la benn date ku ne xam na ni da nga jël ñaari combat ak style tabaat yi nga jël moo ci waaw loolu wax ju yàqu la loolu ay waxu toog te néeg la añ ba pare dëkkataay quoi loolu wax ju yàqu la man Boy Niang bu nekk xale jaar ñu jaar ci làmb ak ñu mu bëreel am fula am def nga wax da ngay puus da ngay wax lu la neex rek ñun kenn duñu puusoo ñu ñëw xool heure bu ñu neex ñu puus bu ñu neexul duñu puus ñun ay doom pigit lañ da nga ak ku mën toog waxee waxee dañoo jël ñaari avance waaye ma reeral leen yéen dama jël ñaari avance waaye benn combat la booy ña am boo déggee ma wax leen loolu mooy dafa am man benn combat la am benn combat laa nekk di préparé te benn combat moom ma ñor te incha li ci kanam rawu di bët dama bëgg ci kàttanu yàlla moom laay ñaan suñu borom moom yor ndam mu may ñu ndam mais dama bëgg bu combat bi jeexee mën a tabaati bu ñu laalee ñu jëflante moom nu làmb ñu gën a xam kan mooy booy ñaa moom nu làmb Boy Niang maa ngi lay ku ne xam na ne dimanche yow yaa war a daral tafaati ndax yaa ko gën a jege stade naka ngeen waajalee si fair play ku ne xam na ne làmb ji jamono ji nu mu demee naka nga waajalee ak sa supporter si fair play parce que yow yaa la war a daral tafaati parce que yaa ko gën a jege stade te ñëpp xam nañ la si fair play waaw jàmm rek jàmm en tant qu'ambassadeur pour la non violence mais aussi en tant que mbër làmb mooy sunu gagne-pain ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay damay woo képp koo xamante ni supporteru Boy Niang nga képp càppaacoli foo mënta nekk ñu ñëw ci yar ak teggin ñu ñoo leen dalal ñu li war a def mooy ñu duy stade bi mu fees tegin bu wekee yëngal wala xeex wala dóor wala bëre loolu ñu bàyyi ko seen mbër ci biir géew incha allah ci Boy sa adversaire kat la sa adversaire bu ko xam xamni xex kat la mo setan nga est-ce que ya ngi xex bobu ba ñu gis ni dafa wañu poids ci combat bi. non poids de. dama jël sama poids de forme. sama poids de forme lo sama may rek sama yaram ko sama poids de forme la am mom la kon Sa de gis ni dafa yokku. ma dem indiwaat li ma amoon jël ko téew ko parce que loolu laa moom mooy sama yëf beneen bi mooy xeex wax naa leen ko nee naa leen yéen a ngi jiin tafaatin xeex bi waaye moomu ko waaw loolu nag waxuma ko parce que dama taxaw fi ngeen def ma ay micro yéen a ngi jiin tafaatin xeex waaye moomu ko man benn poids yab ma ku ma ci bëreel am na fu mu fuñ jaar ma ak yow ak ku mënti toog amu ma difficulté pour xeex ak benn mbër ci arène bi ku bëgg ñu weccoo xeer rek ñu weccoo amul benn problème. boo ñaanee dafa at mënul boo ñu xam nañ ne ay waxam dafa ñëw ndax yaa ngi suufaat xeex moom bu ñu ko dee xam la mooy xeex précision xam bu baax fooy dóor loolu mooy xeex nekkuma rek damaa yor ay loxo di sànni ay kuréel déedéet damay am précision xam bu baax fu dóor loolu mooy xeex. te yàlla def na te yàlla def na te yàlla def na ba ñu nekk xale ba léegi jàng nañ ko dem ci ABC jàng ko ba mokkal ko sant yàlla bu baax a baax donc Tapha Tine bu bëggee ñu xeex rek dañuy xeex yàlla xam na ko ñëwal moo daan joxal moo daan

maa ngi sant yàlla bu baax yàlla yàlla xeeb doole am na fu ma yegg foo xam ne maa ngi sant yàlla. dernière question pour donc boo xoolee ci làmb man maa ko may chance. waaye may chance ñàkk a may chance yooyu yëpp ci làmb ji comme li ma wax léegi rek làmb ji mooy maam moom. am na suuf la gën a suñu diggante ñu jëflante bu baax a baax ñëpp kontaan incha allah. yaat ma seen news yaat ma seen news yaat ma seen news xaar xaar. gars mu gaaw waay ah. waaw moom làmb moom lii moo am moom am rek mbër bi da koy jëli mbër bi nga dajeeg moom mbër bi mu jël si la ñett yooyu ñoo am waaye ñun boo xoolee dañuy dañuy jël ci keppaaru bi am suñu papa Mansour Diop ma koy nuyu bu baax a baax jógee Italie am sama papa Pape Diop Boston am sama papa Pierre de Gaulle am sama papa Pala papa am sama papa am sama papa ñoo xamante ni ñoo ma yar ci làmb donc nag li ñuy yóbbu ci géew ba nag loolu ñun la kooteel na suñuy bagage bopp la. loolu bàyyi leen ko ñun la. ñaa dañu tàmbaloon sa ne bu jeexee jeex na contre Tapha Tine lan la lan mooy waaw war naa leen ko nee naa la ñool tab bi moo gën gësam. ñor taat bi moo gën gësam. Ah. waaw ñor bi moo gën gësam. même mango bu bu ñor taat boppam lekk koo gën a neex boo mu wadd

Reubeuss TV mooy suñu télé. la chaîne de la vérité. tasaare leen ko.